jëf mbokku internet yi nga xam ñoo ñi bayyi xel ñu ngi leen nuyu nuyu di leen baaxa baaxa baaxa a baax di ñaan jàmm ci réew mi encore une fois waaye du nuyu kilifa di ne kilifa aada yëpp di ñaan la way dawli li yàlla yërëm te xarle ajjana di ñaan tëdd ci loolu hôpital yàlla fëgg seen bopp waaye dañu fàtte mbokk ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu leen ñaan suñu borom dimbale ba dellusiwaat suñu biir nag mbokk yi di ñaan dem jàmm ci réew mi yaakaar naa ni réew mi jàmm rek a ci war a xaj di ñaan jàmm bu réew bu baax a baax a baax a baax di ñaan ci weeru koor bi lépp loo xam jàmm na ko suñu yàlla rek suñu borom daal di koy daal di nangul di jaajëfal baat di suma jigen nga xamne moy matu maa ngi koy jaajëfal bu baakha baakha baakha a baax waa waa mbaaw yëpp tey ak tok suñu papa bu ñew suñu papa yaaka na kenn du ko lam damee ci lamb yaaka na ni ku xam faas xam ko ku xam mbiri magi faas xam ko ñom papa maa ngi wa waaw fas ngi lay fay wa di leen nuyu rek euh, di ñaan ci réew mi jàmm du nuyu Sénégal gi pronté le monde entier rawatina akhlu lamb tay nak nga am loo ma bëgg laa tuuti rek ñu see cee waxtaan te loolu dama ci am fierté trop nag ah parce que li mu wax ne moom nga ma bëgg a laaj kuy kilifa ci làmb wala ngay kilifa ci faas war nga cee wax moo bëgg ñu dugg ci doomam bi waxtaan ci tuuti liñ ci xam rek ak li ñuy xalaat xalaat yi xam ne boo liggéey dinañ jural njariñ. balaa maa ñëw ci loolu damay ñëw ci li nga yaakaar ni mooy làmb yaakaar fekk nga fi jamono ju bari ak jamono ju kenn fay amoon nañu yar amoon nañu teggin xam ne fii teg seen tànk rawatina ak suñu doomi léegi yi parce que boo bëree benn combat léegi mën a jaay ñaari bloc rek nee nga champion la doo déglu ndigal doo nelaw heure doo entraîneur heure te loolu yaakaar ne képp ku soutien de famille te dama bëgg doon lamb bëgg a dimbale sama ndey ak sama baay loolu war nga koy fàgganu toujours di ko teg ci kanam loolu na la xale yi manqué léegi du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ne soo leen déggee tey benn un an deux ans boo duggee troisième année toujours ñu dégg te loolu moo leen di gàllankoor loolu leen bëri démb yi rawee waaw. non différence bi mooy Fass Ndakaaru ak écurie Fass dañu booloo doon benn ah beneen Fass bi ci des mën naa ne ci biir Fass la nekk muy goxu Fass ñu daal fa ñu daal fa bëgg ay champion ba yàlla def ñu am ko fa tey. parce que bo sen écrit face ñu fa nek actuellement di bëre nii euh, sombel bi mu drapeau bi moo leen fi indi mais du ñu doomu face mais nag kep fo man di ne rek so ne écrit face la nek so daane rek génnuloo Fass moo tax Fass Ndakaaru doon benn écrit face ben dafa isolé wu tout ñom dañu am sen kurelu bop donc mais lepp ci face la rek lépp ci face tan nak ah ñom nak sen kurel bu ñu ko no ci écurie Fass benn amu ci ndogal amna droit nak bu ñu yëgee xelal leen ne leen def leen nii def leen def leen ni mais amu ñu ndogal 100 pour cent pour dugg seen vie privée ah lool amna est-ce que nekul Fass am ay jafé jafé parce que écrire face bi ñu xamul ci lamp bu ñu wax lamp écrire face ngay wax ñooy pikin wax face nek Fass amoon ben place ci lamp ñek ci nekul dafa commencé perdre place pour ci lamp ñak staff bi mo dess wala ña fa nekkoon te di ya fa tegoon ño amatu jot face wala la. euh face naa na depuis bi ñu taxaw ba légui doon benn bloc comme ni Pikine nekkee bloc saa yu pare entraînement di gisee chaque jour manqué nañu soo xamul Lac Rose toxu na Forza mi ngi fële ñeneen ñeneen ñu ngi ñaar tali ñii ñu ngi kolobaan moo tax heure entraînement la ñu mën a gisee loolu aussi da ciy mais nag Fass fu mu nekkoon ba léegi soo gisee mën na la jóguñu fa heure bu Fass amee combat boo ñëwee ci stade bi xam ne Fass am na combat da nga xool ci dynamique bi nekk actuellement nii yàlla na ko war a jëmale kanam ku nekk écurie Fass am à nga combat. place fi mu nekkoon jóge ba léegi c'est-à-dire làmb nag day am nii day am nii mais nag loolu yàlla may dañ ko jël mais fi nekk nii fu ñu teg suñu tànk bu ñu ko teggul fu mu nekk nii lu ñu ñàkkoon si làmb suñu borom dinañu ko jox bu soobee yàlla waaw parce que loolu gis nañ ko ci xale yi xam naa ne bëggatuñu seen i morom di leen raw te loolu gis nañ ko ci ñëw mais est-ce nekkul yenn mbër yi nga xamante ne dañoo dem si ki mel ni Gris Bordeaux dem mbaaw toog fa ba amee combat ay quelques ñu moom Lac Rose dem toog seg naa faa dem fa bi nañ daan dajaloo di entraîné dajaloo est ce que nekkul loolu moo ray équipe euh, loolu amoon na mais jamono ya muy am bi ñuy waxtaanee amatul il paraît que koor gi nii nag doo mën di entraîné jóge fii guddi gi ñuy daje ñëpp fi doon entraîné da ngay xool ñi la gën a jege rek ñu ànd ñoom géej guddi gi liggéey ñoom liggéey ñoom musculation mais daje bi ñu doon daje ba léegi loolu loolu moom amaat dañu ko te loolu du ñu parce que kenn ku ci nekk yàlla baaxi na la yor nga oto wala yor nga wara waaye deux roues boo mën a ñëwee donc loolu ñu manqué woon kilifa yi waxtaan nañ ci ñun waxtaan nañ ci ba nga xam ne loolu soo gisee dynamique bu nekk na xam ne bu nekkul en bloc résultat yi duñ ko mën am koor gi nekk moom alhamdulilah amaat nañu waaw ñu gis ni ki nga xamante ne nii yaakaar naa comme nga li nga Fass benn Fass Dakar benn la ñu gis am na xale boo xamante ni da ko yaakaar mu amoon espoir nekk ci lamb te amoon coow lamb lool mu ñëw topp foot de terrain digganteem ak Zarko daal si ñàkk muy Ada Fass ñu jël mu jël Zos cooli bari yoolu mook Zos combat bi taxaw ñu gis mu takk si jabar ba mu jógee sa Zarko coole ne mu jël Zos ni mu takk ñaareel cooli bari lool biri bari ñu ngeen ko gisee noonu laa ko gisee bari na trop ci xale bi euh, mais day ñaan yàlla rek yàlla cool yi doon jàmm jabar mënut a ñàkk mais dafa am par étape yaa ngi ci buntu àdduna xaw ma nag mu ngi diisoo ak estafam xaw ma diisoowuñu li ma dégg staff bi wax moom ma amul kilifa du déglu kenn loolu xale bu bëgg a jëm ci kanam dafa am kilifa président bi nga gis Macky Sall sax dafa am kilifa ak ñeneen ak ñeneen kilifa boo ko amul rek lu bari dalee ci bon ma koy digal nag ne ko su fekkee ne da nga bëgg ne li nga dégg li nga fa yéene teg sa tànk ci faas donn ko ci mbéy gi wala maam góor gi wala fëgg dë wala keneen ak keneen loolu nga bëgg retourné nga xoolaat sa la waxtaan ak ñom looy def ngay diso ak ñom lu am solo la en tout cas gi ci internet bi mana rafet lumo. moko sama dom la nag dañuy déggante day déggante ak sama dom boy mar chaque jour mais nak ma li ma gis ñu gis ko ci internet bi du lu ma gën a du gënalul kenn ku dëkk face même bu ñu bokkul écrit couleur face lay défendre su gol do amé combat wala keneen am combat kep ku ñëw ci combat gri Bordeaux wala combat Forza wala ak ku mën di doon su Ada face amé combat da ngay ñëw do couleur face la nam écrit du ñu parce que bo ne pikin tay ji Ama balde bu joge Eumeu sen jog wala Boy nya jog ku ci nek Pikine gëppee jog mom loolu la am et puis dakaru nak ñep yaakar jabar muntanya, a ñàkk xaj na ne par force day say xale bi ci temps dir bu gatt lolou mom kenn du ko di weddil parce que jabar nag yàqulul mbër dara so bëggee sa carrière man nga am témer jabar lo yaqal ñaari dërëm yo yaa xam fi nga bëgg jëm ak fi nga tek sa tank mais nak kanta li ma gi ci ciowlu ni na jog wo ay kilifa waxtaan ñoom ñi xam ñoo ngank lamb la wax de waxtaan yi delu su ko ci bi terrain bi la mu bëgg la ñu ñu ko ko mu mën koo téye mais nag bu amee ay faay tuuti rek soobu mu jéem a voyagé te bàyyi lam man maa la parce que dañoo gis nii ki nga xam ne mooy Ada Fass ñu bëri nee nañ Ada Fass nekk yaakaar naa ni bukk timis saa yoo ko dàkkee bul sori data xam bul sori daa yoo ko dàkkee sa gétt bul sori daf muy zos ndax zos ba muy daan booy ñaar ci dynamique yi nga xamante ni nii si la Ada Fass nekkoon la nekkoon géej coow mu daan fay daane ñëpp dañ ko jox favori moom gis mu def nii est-ce xam ne mooy plan de carrière nga xam ne ñu bëri nee nañ Ada Fass plan bi nga xam ne moom na jot baaxul. non bu jëlee Zos. ne moom moomu njëkk ci làmb mag la. te day nax boppam. Zos bu leen di fàtte ne Zos dafa mbappat. Zos dafa mën a bëree tëlawul. naam taayam bokkul ni taayu gaay mais dafa am lu mu man maanaam am na caay-caayu géew. te soo def loolu mën na la daan ci ay minutes doo doo bala ngaa rappelé di egg kër ga. muy combat boo xam ne nag coow li bari na mu daan jos aussi dina dina ko indil beneen jéego parce que dama fu mu jógee ci defar bu mu jógee ak coow li ko topp nii mais na xam ne ki muy bëreel su ko ëppee doole du quatre vingt pour cent su ko dàqee bëri du quatre-vingt-dix pour cent te jos combat bi da ciy bëgg a lekkaat xaalis ay moromam bàyyi nañ ñu doo bëri genn wàll gi bàyyi nañ mais dafa bëgg a lekkaat xaalis boole ko liggéey bu muy liggéey kon jos bu jëlee aada phase mu am coow nekk ci dynamique dynamique bu bu baax bu bu bu mucc ayib am na fu mu ko teg